yéeme woon na trop jafe woon na trop metti woon na lool waaye nag lépp dañ koy delloo ci yàlla rek ndaxte comme du ñoon ndong laaloon na àdduna bi yëpp looloo tax daanaka dañ koy daal di muñ muñ waaye metti woon na lool suñu liggéey gàllankooroon na lool tey ay borom kër lañ ay responsable lañ ay ndaw lañ waaye nag dañoo am vision dafa am fu ñu bëgg a àgg jafewoon na lool waaye nag lépp sant yàlla rek ndax liggéey bi demee wutoon noonu te borom kër nga boo wàccee dépense la ak say frais jafewoon na daal ndax oto yi moom bu fekkee ne dembeek dikk bi sooxe na rek ku nekk xam na ne comme ñun ci oto la ñuy liggéey bu oto yi circulé wu rek suñu liggéey du fonctionné yéeme woon na lool waaye nag sant yàlla rek fi mu nekk nii moom euh, ñu ngi commencé reprendre ndànk-ndànk ndax te clients yi ñu ngi ñëw euh, ndànk-ndànk quoi waaye sant yàlla rek yéeme na daal. yéeme woon na trop waaye nag jafe-jafe maanaam jàpp jafe boo gis rek jàpp ndal moo ciy topp daal jafe-jafe moom a baax ndax maa ne bi corona bi dugg ci réew mi ba léegi nii wax dëgg yàlla toll na benn mois ay 15 jours yoo xamante ni wun na jëmee a dem bërëb ba yi nga xamante war a liggéeyal du ma fa gis benn oto boo xamante ni mi ko liggéeyal oto yi yi ci ëpp dañ koo gaara woon ndax maanaam gasoil bi parce que da taw tour la journée doo mën a génn sax gaasuwaal koo ba bëggee boole ko ah dépendance day metti dépasse taw ñoonu lool leen xëy ba wàcc jot doo seere de doo seere maam dépasse bi nga xam ne mën nañu jëfandikoo sax war na jëmi Serigne Touba dañu ko naan leb moom météo nag lool lool lool loolu wax dëgg yàlla corona bi wax dëgg moom lim laal ci moom ci ouvrier yi rawatina wàllu mécanicien yi dañoo laal bu baax a baax a baax a baax ubbee transport nag ñu gën a santal yàlla bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla moom liggéey mi ngi commencé amaat changement bu baax a baax wax dëgg yàlla ndax it maanaam taxawaay yu yi wax dëgg yàlla oto yi commencé ni génnaat ñu bëri dañoo gaarawaan dañoo jumbu ñëwaat ci ñun daal di yàlla ñu ngi commencé yàlla baax a baax yàlla fan moom moom lu mu dee dee bu ñu xëyee dinañ liggéey ba wàcc jot wax dëgg yàlla ñu ngi sutur bu baax a baax moom daal ñuy santal yàlla baax di ñaan yàlla saa borom nag feebar bi moom mu jeex tàkk ci réew mi dañ nit ñëpp mën nekkaat seen activité kii boo xool léegi jëfetut ndaa le tay jëfetut oto ni fa modèle yi xam ñoo mujjee génne presque am na machine yoo xamante ñoo koy dépanne tey saa bi boo ko xooloo ba topp ak sooy ba xam ne leer am na benn machine boo xamante ci ngay branché nga tàppe

ñun ñi nga xam dañuy liggéey ci wàllum oto yi liggéeyuñu am nañ problème boobu ndax oto yi bu demut dikkut ñun duñ mën a liggéey waaye nag instant bi moom ñu ngi sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla bi nga xamante ni na ba oto yi ne moom changé waat na baax wax dëgg yàlla macha allah. ma la ko waxee léegi rek instant bi moom ñu ngi ñëw moom jab jamono yoo xamante moom garage bi nii boo taxawee nii mën naa ne benn oto doo fi gis waaw moom affaire yi tijjee ba léegi wax dëgg yàlla moom ñu ngi gis suñu bopp baax a baax wax dëgg yàlla par rapport ak jamono ci ginnaaw instant bi wax moom ñu ngi liggéey ñu ngi sant yàlla daal macha allah instant bi yomb na yombut ndax nekk na liggéey boo xamante ni metti na trop ndax ci weñ ngay liggéey ci liggéey encore liggéey ci naaju encore boo rek wax dëgg moom tolee moom metti na trop na moom waaw waaye nag sant rek liggéey moom benn liggéey yombul daal xaw na yéeme da nga da ngay tollee oto bi général doo changé dara lépp da nga koy tëggaat ay weñ lay doon mais jamono ji mën naa dafa xaw a changé ba nga xamante ni parce que conteneur yi ñëw parce que léegi oto yi léegi bagage yëpp léegi dañ koy monté waat léegi ay porte pare-choc parce que lépp daal oto yi daal léegi lépp daal parce que ni tollee demoon bu njëkk daal xam naa ne léegi moom wàññeeku na léegi léegi bagage yi ñoo xaw a léegi quoi